asalaamaaleykum mbokk yi yéen yi nga xam ni yéenay safoo chaîne bii di Buzz vingt 221 ñu ngi sàkku baax ngeen abone aimé partage commentaire like ndax kat loolu dina nekk saa su ne lu ñu daal di jàppale la tey jii dañu daal di ñëw saa su ne comme niñ ko defee ak yéen muy ab jàngat bi nga xam ni bi la dina koy faral di def moom mën nañ ki nga xam ni moo di njiitalu Pastef daal di wéccu turu Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xamee daal na wéyal lenn ci li nga xam ni moo di caravane de la liberté jëlee ko foofee ca Ziguinchor war a ñëw fii nga xam ni moo di Ndakaaru Ndiaye te loolee ginnaaw bi nga xam ni daal nañ ko taxawal bu baax ñi nga xam ni ñoo di takk der daal di def loolee jëlee ko ci ndigalu ki nga xam ni moo di ministre de l'intérieur bi la moomee sax ginnaaw bi mu xamee àdduna foofe caw RTS waaye moom gi nga xam ni tey moo di njiitul Pastef bi di wéccu turu Ousmane Sonko daal dina xamle léegi ni démb ci ab li nga xam def na ko mu dee déclaration moom daal dina xamle bu baax a baax ki nga xam ni moo di ministre bi lay di wéy turu Antoine Félix Diome mën nañ ne kàddu yi nga xam ni yëkkati na ko nekk na kàddu yi nga xam ni saa su ne amul waxul benn yoon li nga xam ni moo daal di dëgg loolee mu nekk mbir bi nga xam ni yéeme na loolu waaye nag ci loolee daal dina xamle bu baax a baax dafay rafetlu ci nga xam ni moo di lenn ci. foofee gi nga xam ni ginnaaw bi ñiy yëkkati kàddu daal di dëggal bu baax a baax muy procureur boobu daal di xamle li nga xam ni wax na ko tey jii mu nekk ay mbir yu am solo waaye daanaka fi ñu toll nii dañaa toll ci réew mi nga xam ni Sénégal gi mu ngi dugg ci beneen xar kanam bi nga xam ni saa su nee ñi nga xam ni ñoom la ñuy woowee kilifa diine kilifa aada ak kilifa jàng bi ba foo faree war nañ leen déglu bu baax te war nañ àddu bu baax a baax ci àddu bi nga xam ni doon na donte doon nañ addu waaye kat àddu bi war na nekk àddu bi nga xam ni warul yem kese ci yebal seen i ndaw waaye kat war nañu woo li nga xam ni moo di rajo yi télévision wala kat addu bu ñu mën a demee ba ci ñi nga xam ni sax ñoo di ay ñi nga xam ne ñoo di journaliste presse bi ngir kat ñu jàmbaarloo ak kilifa diine yi ñoom ñu daal def déclaration saa su nekk comme ni ko maam Abdoul Aziz Dabakh daan defee su réew mi daan toll fii nga xam ni fi lay toll ndax kat li war lu ni mel gis nañu li nga xam ni moom la réew mi toll mu nekk mbir bi nga xam ni manifestation mu ngi am bu baax baax depuis boobu ba léegi ci jàmb ak salaam waaye nag tamit commencé nañ di yëngal leen ci gox goxaan yi te loolee mën na jur benn fitna bi nga xam ni te fitna dafay nelaw yàlla rëbb na ko koy yee waaye nag daanaka war nañu waxal ñi nga xam ne ñoo diriger réew mi bu baax a baax ngir kat ñoom ñi nga xam ne ñoo di kilifa diine yi kilifa aada yi ngir kilifa jàngu bi ndax kat ñoom ñu ne dañaa yor ñi nga xam ne seen njaboot dañu nekk seen ginnaaw te baana bëriwaana ñi nga xam ne tey jii ñu ngi ci gouvernement bi ñi nga xam ne tey jii ñu ngi dëkkee ci Sénégal ñoom ñëpp ku nekk am na fi nga féetewoo ci ñooñu kilifa diine kilifa aada kilifa jàng bi kon daanaka ñoom jot na tey jii ñi nga xam ne ñoo di kilifa yooyu la ñu woo presse bi jàkkaarloo ak ñoom def direct wax ñu daal di dégg comme niñ koy defee saa su ne ci leen li nga xam ni gàmmu buy am wala màggal am wala pèlerinage am wala dara leen daal di am ndax fi ñu toll nii mun nañ ne gis nañu li nga xam ni moom moo di leen taal yi nga xam ni xale yi commencé nañ kaa def bu baax a baax ndax kat ki nga xam ni moo di Waly Bodian mun nañ ne moom mi la ne gën démb ak une heure du matin daal di nañ taal foofee ci li nga xam ne moo di këram di fa sànni leen li nga xam ne moo di njeexital molotov boobu le mu nekk mbir nga xam ni yéeme na ba ci sax caméra surveillance yi ñoo daal di xàmmee gis loolu le waaye nag ba léegi xamuñu ñan ñoo def lu ni mel tey jooy le boo jëlee ñi nga xam ni ñoo di Zator Mbaye noonee lañ ko daan defee foofee ca këram mu nekk mbir nga xam ni ñaaw na ba taal sax ak otom loolee lañ ko defee ci nga xam ni moo di Serigne mbay caam foofee ca këram loolee tamit lañ ko defee ci ki nga xam ni moo di Matar Ba nekk ministre bi fa woon ci sport waaye tamit noonee lañ ko def ci ki nga xam ni moo di Abdou Latif Coulibaly ba jàpp ki nga xam ni moo di Antoine Félix Diome ministre de l'intérieur foofee ci ki nga xam ni moo di këram barka démb Ndiaye lañ ko def ci fi nga xam ni moo di Cheikh Bara njaay borom def gis waaye tamit moom chroniqueur boobu lee tey jii mën nañ ne Aïda Mbodj gis nañu tamit ñi nga xam ni ñoo ngi koy def ci leen li nga xam ni moo di bis Dakar dem dëkk yi ba sax ak taximaan bi nga xam ni gis nañu ni ñi xam ni noonu lay yàkkee otoom donte suñu takk der yi ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan ngir kat fexee ba li nga xam ne moo di manifestant yi ak lu ñu mel ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu doon benn fexee la tout li nga xam ne loolee du am benn yoon ndax kat saa su ne ñii di manifesté wu ak ñi nga xam ne ñoo di takk der yi suñu sañoon lii du am benn yoon ci mim réew du Sénégal kon nag daanaka fi ñu toll nii mun nañ ne ñi nga xam ne ñoo di kilifa diine kilifa aada yi war nañu wax waaye ki nga xam ne moo di réew mi saa su ne pataaram gi nga xam ne dañ koy gis ci lii bu amee moom tamit war na addu bu baax a baax ndax jamono gii ginnaaw ginnaaw bi nga xamee génn réew mi sax dem ngir uti jàmm waaye dem ngir jokkalante bu baax a baax ci wàllum réew ak biti réew waaye tamit wàllum réew ak réew waaye nag bay sa weew tànk bala ngaa génn di dem fenn di am loo fay defe ji war nga kaa defee fi nga xam ni moo di sa dëkk sa kër bu baax a baax loolee sax tax na moom war na àddu bu baax jëmale ci tolluwaay bi ndax kat lu fi am yëpp duñ ne moom yëgu ci dara ndax kat bokk na ci ñi nga xam ni ku ñuy bàyyi xel la waaye bokk na ci ñi nga xam ni saa su ne ku ñuy dëgtal la ci liy xew ci réewam loolee sax moom mi nga xam ni tey jii moo di Amadou Ba jamono gu ñu waxee ak yéen foofee nga xam ni moo di Touba dem na fa ginnaaw ni démb daal di xamle bu baax 45 milliards bëgg nañ ko def ci wàllum assainissement assainissement ngir kat foofee ci Touba lépp mu daal di jaar yoon bu baax ci ba xam ni li nga xam ne moo di taw yi bu dikkee du fa def benn dégâts ci loolee ki nga xam ni moo di Fela Fleur moom nag jamono anam amee na di xamle bu baax a baax ay agent yi nga xam ne moo di agent dik daal di ñëw fi nga xam ne moo di lieu travail maanaam bërëb bi muy liggéey ngir kat bu kaa jàpp waaye nag loole ci Alioune Sané moom tamit nekk na ki nga xam ni moo di coordinateur F24 waaye bokk na tamit njiitalu fi nga xam moo di fi nga xam ni moo di Y'en a marre jamono gu ñu waxee ak benn daan nañ ko teg garde à mu nekk mbir yi nga xam ni saa su ne fu réew tolloo fii war nañu addu atte xamale bu baax a baax kilifa yi tamit war a teel a addu art ndax kat ak réew am na fu muy toll soo waxul ci teel ci njël mun nañ ne am na fooy toll boo waxee xale yi duñ la déglu kon daanaka fi nga xam ni fii lañ toll muy baalum wàllum garsa garsa bi la ñu koy gisee ci ñaari cas yëpp kon kat mun nañ ne ñi nga xam ne ñoo di kilifa diine kilifa aada yi war nañu wax bu baax a baax rawat nañ kilifa yi nga xam ni saa su ne ñoom lañ dénk suñu réew waaye lu mën a am ba am ci mim réew di Sénégal dañuy ñaan yàlla jàmb sax fi am fi bu baax a baax ndax kat Sénégal jàmb rek moo fi xaj gis nañu ndëkk yi nga xam ne ñooy alentour nu mel bu baax te loolee yàlla bu ko Sénégal dund benn yoon di sàkk bu baax bu dee gan nga ci chaîne bi nga abonné aimé partage commentaire like ndax kat dina nekk li nga xam ne saa su ne luñ daal di jàppale la salaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu